saraax la nuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa kànji bu Boy Niang 2 moom tafaakanji na Thierno Gueye def génn ci sunu lamb défendre mbërëm wax ña mu war a bëreel ak ña mu mën loolee la tafaakanji bu Boy Niang 2 def moom it génn na ci sunu lamb bàkk na Boy Niang kañ na Boy Niang 2 moom tafaakanji tontu Thierno Gueye képp ko taxoon a jóg moom Thierno Gueye ba mu waxee xalaatam ci sunu lamb ni dafa yàkkamtee gis Balla Gaye 2 mu jàpp yenn mbër yi tucc tuccal leen kalaasu Boy Niang 2 gi fi nekk di lappi-lappi dafa yàkkamti Balla Gaye 2 jàpp leen tucc tuccal leen ba waa Pikine staffu Boy Niang ba bëgg a tontu moom tafaakanji da leen def leen dànk Tafa maay borom dëj bi mën naa jooy sama dëj bu leen fàtte ne Thierno la te préparateur mystique bu waxee préparateur mystique moo ko war tontu damaa bëgg yow Thierno Gueye ak waa Guédiawaye ngeen xam ne Balla Gaye 2 lenn ci Boy lu dul xool Balla Gaye bu ko seytaane ruuxee ba mu bëgg duma Boy dana gis lu ko wexaat ñoom kay li ñu war def mooy jël combat bi Balla bu jëlee avance bu dana xeex dana bëre bu jëlee avance bu l'essentiel ku tëj na combat Siteu Papa Sow boobee le 5 la waroon am ñu puus ko waaye ci aj ko lañu jëm bi le combat waroon a bëreek promoteur ba ko tëgg kenn xamul combat bi kañ lay am bu ñu jàllee ca MMA dañuy fekk yeneen i ca tàbbi di xaar bés bu rafet gannaaw ba ca Bombardier duggee Siteu dugg ca Reug Reug dugg ca am na yeneen i ca tàbbi moom guy gi roi di sempi dugg na ca MMA MMA mu nga ca biir Abdou Diouf bu waalo dugg na ci MMA mu nga ca biir Baye Mandione bu gëm sa bopp dugg na ci MMA mu nga ca biir kii di guy gi ak Abdou Diouf moom ñu ngi doon négocier ay tuuti moo ca desoon coronavirus bi moo fa jaar yàqu ko waaye njortu nañ ne buy dem combat di taxaw bu dee Baye Mandione moom waxtaan na ci xaritam bi ñuy wax Pape muy def MMA foofee ca France ba ñu d'accord ñoom corona bi génn na mooy tàbbi nañ ci MMA fa ñuy jeexale Fass le 4 avril la waroon a am fomm nanu ko combat bu mag ba combat daj dëpp ga diggante Siteu ak Papa Sow le 5 avril la waroon a am fomm nanu ko Tigre Junior ak Boy Jaxaw le 11 avril la naroon am fomm nanu ko ko Caatu Boy Bambara ak Mor Dia le 13 avril la waroon a am fomm nanu ko Batista ak Aline Mbaye Nder le 18 avril la waroon am fomm nanu ko ko Papa Boy Djiné ak Bébé Bismi le avril la waroon a am fomm nanu ko Armée bu benn daam diggante Serigne Ndiaye di ak Sococim ñaari combat yooyee le 21 juin la nu ko jàpp te couvre-feu bi le 2 juin la bu nu prolongé waatee couvre-feu bi boobu combat déwénati rek jërë ngeen jëf mbokk yi li ma li gën a fës ci ëttu bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah